بكفيك ربح القلق ترا وقسره وخيرك لم يلف لديه نقيرا Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah Allah ya Allah Allah Allah Allah Allah ya Allah Allah Allah Allah Allah ya Allah Allah Allah Allah Allah ya Allah Allah Allah Allah Allah ya Allah Allah Allah Allah Allah

الكريم على الحبيب سيد الكيان حمد الأنعام أحلى لقائي أفاسي من ذي الأواني الله الله الله يا الله الله الله الله يا الله الله الله ànd ak yow ñun ñëpp kenn gisu si dellu ginnaaw depuis ñu ànd ak yow léegi ay xale lañ man yaakaar naa deux mille dix deux mille laa fi ñëw bu baax léegi def na ay at yàgg na yàggul am ñoo xam ne ñoo fi jiitu wax dëgg yàlla booba léegi ku ci nekk si ñun li nga li nga mënoon démb rek nga ko gën a mën kon loolu sant yàlla la kon bu bés bi jotee ñu ne nañ la ko bettee yëf yaa ngi noonu taal bi ñoo ko organisé mais kat nit kat dara lu dul xitmaal sëriñam lii yëpp ñu ngi ko euh, ñu ngi ko jubloo ci buntu xitmal la moo tax daal ñu ne comme tey la sa bésu anniversaire nañ la ko bettee ànd ak waa daayira bi na ak waa koñ bi daal dégalee la ko jublu si dara nag du dul euh, fédéral suñu ànd ak yow loolu daal lañ moo taxoon ñu ñu def lii kon ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp ñu jégaluwaal beneen yoon ñu sàkk si yoon ñaan jërëjëf. naa loolu yow sëriñ bi loolu rek la. dara lu dul liggéeyal la topp sa gannaaw loo ñuy wax ñu def ko loo ñu tere ñu bàyyi loolu la taalibe bi mën a jëriñoo ci sëriñam moo tax it ñu def lii li ci seexu wax rek moo ci nekk li ñuy jéggulu daal mooy bett gi ñàkk la koy wax ak ñu demee noonu yëpp waaw loolu yëpp dul ci dara rek lu dul liggéeyal la sàkku ci yow ñaan topp sa gannaaw loo ñuy wax ñu def ko loo ñu tere ñu bàyyi ndax wanoo ñu kenn ku dul bàyyi ñes radiyallahu anhu waaw wanoo ñooñu kenn ku wanu loo kenn ku dul yonent bi alayhi salaatu wa salaam wanu loo ñu kenn ku dul yàlla subhanahu wa taala kon ñu lay sant dana gërëm ci loolu man bu ma ànd ak yow yàggut waaye maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax waaw sant yàlla gi nag ñoo ko sax xëy na ci am-am waaye maa ngi dooleeku ci yàlla te xam naa ne fi nga ma fekkoon ak fi ma yóbbu man xam naa ko waaw yal na yàlla dolli te yàlla yàggal la ci suñu kanam yàlla may la wér may la gudd fan yaa xam li nga yàlla na la ko yàlla defal ba defal lu kawe sa njort yàlla na yàlla yokk xadara bi yàlla yàlla yokk taalibe yi ñu ànd ak wér ak tal ak fekkee dana seen poche yi ba dal ànd ak mu dal ànd ak bëgg bàyyi ànd ak di liggéeyal bàyyi moom ñu la mën a wax mooy am nga euh, euh, yàlla dafa def tam ñu may yee sànq dama leen wax ne dama parce que dama naanu comprimé pour nalaw parce que depuis démb ba tey maa ngi xoole du ma ñëwee ànd ak ñoom Cheikh Madiara ñu dem ci benn tudd enchaîné bi ma ñëwee nag sama bopp di métti ma tëdd di boobu léegi maa ngi nalaw bi ma yeewoo sax ma gis sëriñ baax baas dama ne waaw lii lu xew waaye boobu fekk na tam yeneen ci yéene bu rafet bii waaw lii yëpp ci rafetal ànd la defalu leen ma ko Cheikh Ibrahima ngeen ko defal parce que ñun suñ lépp Baye Niass la te ñun tam dañ wax ne moom lañu ñu représenté tarixa bi sax bokk na ci sart yi wax nañ ne Seydina Ahmed Tidiane wax na ne képp koo xam ne mu muqadam daf la jox wérd na nga xam ne man Seydina Tidiane maa la jox wérd soo yëgee ak soo yëgul ci jamono ba la koy jox kon ñun moom rek la ñu représenté waaye rawatina ba nga xamee ne suñ yitte ak suñu jëf yëpp ñun bàyyi la euh, wax dëgg fa yàlla kenn ku ne ci yéen ñu xam ko ci pas-pasam ak mbëggeelam ci Baye ak waaye mbëggeelam tam ci ñun ñi nga xam ne eh, ñooy seen sëriñ euh, jëf yu baax lu ñu war a yaatal la man wax naa jamono bii ñu nekk tam nit ñi dañoo foog ne ñu bon ñoo ëpp mais ñi baax ñoo ëpp ñi bon c'est-à-dire ñu bon ñi ñoo fesal seen mbon ba nit ñi foog ne dañoo bari waaye yéen ñëpp ak ñeneen ñu ñëwul ñëpp ay doomi nit ñu baax lañ te lu baax rek ngeen bëgg te lu baax rek ngeen di dox moo tax tam lu baax rek ngeen ngeen mën a jëf ñii yàlla moo leen tànn bëgg loo leen sikar <clears throat> ñii ñu nekk ay tuddukatu yàlla ñii nekk ay wérdkat ñii nekk ay naafilakat ànd ak loolu yëpp ngërmande yàlla la rek euh, sama xol bi daal fees na fees boo xam ne ak bég boo xam ne daanaka moom Euh, mooy li ma wax ci njëlbeen gi rek waaw kuy wax àllum neen moom soo ko bettee mënta wax mooy xol bi fees na rek liñ mën a wax mooy ne jërëjëfee Baay buñ sante Baay Ñas dañuy am yaakaar ne danañ yokk ci yàlla Sénégal nag mbóot bi mooy wax jërëjëfee Baay bu fekkee ne Sénégal xam nañ kon dinañ dëkk di wax jërëjëfee Baye parce que wax na ne daawatu rabbi an yahuma hadi kullal wara wa yahma doon doona champs yi yàlla maa ngi lay ñaan nga matal sama nga matal njubu xaalam bi ci man ñuy sant sama jëf te baatu ñiy sant ashakirina soo ko xalatee mook senegal ñoo tolloo donc mbóot la bu doy waar boo xam ne xam naa ne su yaram bi tàngee tuuti mën naa am ñu gën a xuus ci loolu waaye ànd ak loolu daal yàlla xam na ne aw ma baat yi ma yëkkati lu dul sant leen sant leen ci ànd bu rafet bi nga xam ne maa ngi koy ànd ak yéen at bu nekk di ngeen fexe ba taxawal gàmm bu mag di ngeen fexe ba taxawal baas yu seer di ngeen fexe ba taxawal dara du manqué ci suñu gàmm gi nga xam ne ça fait plus def sept ñu ngi koy organiser te kenn organiser wu ko ku dul yéen yéen a ngi ànd ak man ci ma yi yéen a ngi ànd ak man Medina Baye yéen a ngi ànd ak man fu ne euh, awma seen fay waaye nag Cheikh Ibrahima mooy kii fay te moom moo leen di fay wax dëgg fa yàlla kontaan nañ bëgg nañ euh, yaakaar naa su amoon leneen lu ma ci teg danaa ko ci teg wax dëgg fa yàlla waaw parce que ñu may yee nii ne ma jógal am na ñu lay seet dama leen wax na jógu ku ne wax nañ ma am na ku lay seet ma ne leen damay nelaw parce que damaa gëmoon boobu wax dëgg fa yàlla xaw ma woon ne lii yëpp mu ngi fi waaye gis nga ko <coughs> baax rek moo am solo ñu ngi leen di ñaanal yàlla fan wu gudd ak wér di ñaan yàlla mu musal leen ci seytaane musiba ak balaa musal leen ci fan wu gàtt musal leen ci déegu ñaaw yàlla yàlla musal leen ci lépp luy lor yàlla maye wërsëg bu yaatu te mag sax lool ci barke Baye yàlla bu ñu réeroon Baye lépp loo xam ne am na ci pays Cheikh Ibrahim luñ xam ak luñ xamul luñ yëg ak luñ yëgul luñ foogoon ne amu ci sax yàlla na bàyyi defal ñu ko waaw ci xéewal ci yokkute alhamdulilah ñu ngi ziare ñu baax ñi fi teew yëpp waaw ñoom Cheikh Madia muy waliw yàlla di nit ku baax di boroom xam-xam nit ku woyof moom tam waaw ñoom sama xarit barham barham média universel waaye balaa nga may jël nag mënoon ngaa bàyyi ba ma.